télé yi dañ ñoo tere propagande xam nga loolu lañu tere parce que nee nañu dañoo nekk ci période pré campagne pré campagne bi ñu nekk te yow mi soo génnoon doon def doon def doon def meeting dañ koy tere ñi waa PDS ñii nii ñoom Keba Kanté samedi passé dañ doon def meeting ñu am autorisation dem ba installé ba kaar yi commencé wàcc gendarmerie fekk ne leen fa ne du leen ko fi defee samedi samedi ñoom Kéba Kanté. d'accord parce que tout simplement ci période pré-campagne la ñu nekk. pendant ce temps le premier ministre mu ngi campagne Dakar Arena woo fa adduna bi mu fees dell ku ci nekk indaal say 1000 francs 1000 francs sama nekkul ci 1000 francs 1000 francs ku mu neex na joxe man ga man sama xaalis yàgg na dugg seen 1000 francs 1000 francs ndax sama rak ni ma sonalé Pastef la say bu amé amee koñot mu këccët sama 1000 francs yóbbu fa. est que comprendre nga donc loolu garaawul quoi mais problème bi xam nga la ñun dañoo tere waxatuma sax moment bi Bakel nekkee ci tourmente ci problème boobu ñu war a woo askan wi yëpp ku nekk joxe 1000 francs ku nekk joxe 1000 francs ñu yóbbu waa Bakel mais déedéet dañuy dem campagne ku nekk na indi 1000 francs ok d'accord naa mais ci pre campagne lañ nekk ñoom ñu yore ñoom ñu yore nguur gi ku fi def di génn di def campagne wala ngay def propagande ñu jàpp la ne la yaa ngi def entorse à la loi pendant ce temps ki nga xamante ne moom mooy premier ministre mu ngi woote campagne euh, Dakar Arena ñu teg ko fan maanaam man maay buur man maay borom kër gi lu ma neex laay def ci kër gi maay maay borom kër gi fu ma neex laay neefere loolu lay loolu lay nduru mais euh, réew mi fi mu jëm ci jëmi boppam ñu ci bari ñu ngi doogay xam ne nag ñu ngi doogay jàpp sénégalais yi sénégalais yi ñu ngi doogay jàpp ci conc kuy daw xam nga jàpp ci kuy daw nga jàpp ci concam waa ci loolu la ci du ñii ñoom ñoo ñuy indil li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy solution lii nag dama jàpp ne lenn rek la bëgg a muur mooy parce que tout simplement ils nous ont présenté un plan un plan copier-coller du plan Sénégal émergent pendant ce temps ki nga xamante ni moom moo leen jaay projet boobu mon mode defar plan Sénégal émergent Moi, Bachir Fofani de ils ont vendu du du du du un un plan un un à la sauce du PSE. Madame, euh, plat bi yàgg nañ ko mais biñ ko sauce PS, e lañ tout simplement parce que rien nañu Réunion, gis nañ ne ñoom bi ñëwee leer na leen lér yalla né le plan Sénégal émergent képp mo mën a doxal réew mi légui nak pour pour effacer les traces de leurs prédécesseurs ils veulent effacer le plan Sénégal émergent indi seen seen seen seen perspective vision 2050 mais c'est la même chose li nekk bir plan Sénégal émergent amul virgule buñ ci changer légui nak moment bobu nonu nit ñi commencé di ci wax est, il faut mu créer contre-feu il est toujours comme ça bu nekkee ci moment de de, de faiblesse rek mu créer contre-feu contre-feu bi fan la mooy Dakar Arena lundi tous les journaux vont titrer fees bi mu fessel Dakar Arena Faté nañu ñi nga xamante ñom ñoom ñoo nekk Bakel Bakel ay xalé yu ndaw ñu fa nekk bëgg jangi mënu mënuñoo jangi. ay mère de famille ñu fa nekk bëgg a mënu mënuñoo lekk mm-hmm. ay nit ñu nga fa nekk bëgg a tëdd ci lal ñu amuñu lal bu ñu tëdd ñi nga xamante ñi nga xamante ay ay toll lañu yor di bay sen mbay mom lañu yaakaar ndox mi lek na sen mbay mi yow nga dajale say 1000 francs 1000 francs pour pour am pour dougal sa poche pour dem campagne pendant ce temps yow faté amna na ko wax je ne sais pas si c'est Yoro Dia ou autre chose Baba Aïdara non je ne sais pas amna na ko wax mune en moins que ça en 2017 2017 xawma 2007 moins que ça Cheikh Omar. Cheikh Omar An. moins que ça moins que ça en 2000 moins que ça en 2017 Euh, renvoyé woon nañu li nga xamante ne moom mooy élection législative yi moins que sax ñu jëm ci ay élection léegi waa Bakel dañoo bokkul Sénégal nan la ñuy voté ci yan circonstance la ñuy voté xalaatoo loolu maa ngi dégg Birame Lo mi ñoom dinañ voté parce que dispositif balaa ngaa voté nga tal foo nekk tal foo tal loo lekk tal loo naan ñoom seen yoon dafa nekkul ci askan bi li ñuy dund instant bi ils doivent apporter des solutions pour soutenir pour soulager la population Bakel li Bougane de Don Don def sont la de la survoler est-ce que le vice président de la République dans son programme mu ne rencontrer la population survoler pour def état des lieux rencontrer rencontre yooyu site orpaillage la war représentants et la population dans tout ça askan wi dans tout ça ñi nga xamanteni ñi ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci tant ñi nga xamanteni ni ñu ngi ci biir ndox yi wala mom dafa baña dugg ci ndox bi wala dafa baña dugg ci gal pour séti ñi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci ndox bi ay bu doon Macky Sall la. bu doon Macky Sall la. bien sûr parce qu'il a failli le faire à Keur bu doon Macky Sall la a monter sur une pirogue à Keur on lui a interdit ça. tey bu doon Macky Sall comme expliquer ni excusez hein dafa am lu mo expliquer léegi léegi ma ngi ma maa ngi dégg Sai, sai, io non dar tang. Ma